asalaamualeykum waa Sénégal salaamualeykum waa àdduna ñi ngi nuyuwaat ñëpp di leen ziar bu baax a baax di leen ñaanal jàmm tey ñaan yàlla def ko ci àdduna bépp di remercier ñëpp ñi nga xam te ni ñu ngi topp suñu vidéo di leen wax rek ngeen gën a abonné wu tey partage vidéo yi pour liggéey bi gën a yaatu alors tey waa Lu Xew TV ñoo ñëwaat ak yéen ci beneen analise bu ñuy def ci série maîtresse d'un homme marié donc tey bu ñu seetaanee épisode 22 ba pare dañu gis que la mi ngi doon expliquer nan la def ba piéger Cheikh ak Mariam ba comprendre lépp lépp lépp loo xam te ne dund nañ ko donc ñu am ay quelques points ñu ci noté bëggoon ci débattre ak yéen. alors ñu ngi leen di rappeler que numéro bii ngeen di gis aussi mooy sunu service commercial képp ku am looy jaay moo xam ay meuble la moo xam oto la. yére dàll lu mu mën a doon bëgg visibilité boo ñu contacter incha allah dinañ ci waxtaan ak yéen également képp ku am xalaat ci Sénégal lépp lu mu mën a doon nga bëggoon ko jàllale ci YouTube bi incha allah mën nga ñu contacter ci numéro bi incha allah dinañ ci waxtaan ak yow donc tey point bu njëkk bi ñu indi mooy góor ñi nga xamante ni si ñi ngi am soxna ba pare di doxaan. war nañ moytu bu baax a baax parce que am na ci yenn xeetu jigéen yoo xamante ni même bu ñu xamee li ngay def dañ lay bàyyi ci biir di xaar bés bu rafet togg lépp ba mu ñor yow nga yaakaar ni xamuñu dara fekk comprendre nañ lépp et tey bu ñu seetaanee série bi dañuy gis que ni la moom comprendre na la le début ndeke mais dafa bàyyi woon Cheikh ci biir muy continuer di def li muy def alors que moom amoon na lépp presque en direct bon li mu def. d'une part permettre na ko mu xam ban façon jëkkër la yor mais d' autre part aussi li nit ñi di wax qui cherche trouve xëy na bu deful woon lii mu def du xam lii lépp te tamit xëy na kon su boobaa situation bi du toll fii mais tamit ñun moom kenn demul ñu des parce que ñun dañoo xaw a doy waar trop dañoo xaw a lëndëm trop te bu ñu bëggee defuk jubadi moom suñu pexe yu ne la ñuy lal pour def ko mais je pense képp koo xamante ni gis nga tey épisode tey bi ni mu demee bu fekkee danga am soxna ba di doxaan te di ko nëbb war nga xam ni jigéen ñi des fois dinañ xam ba ca mais nag man je vois que Lalla def na benn erreur ban erreur la def mooy le fait que mu impliqué Noura doomam bi ci jeu bi mu doon joué parce que xale kenn du ko impliqué ci yenn situation yi et déjà rôle yi mu ko joué loolu noonu du loolu xale te xale bi su màggaalee ak loolu mën na nekk ëllëg mag bu doy waar donc doom waroo ko mën a digal yéen nii doom waroo ko mën a dugal ci yenn jeux yi donc man je pense que tey mënoon na trouver yeneen solution pour comprendre lépp lu Cheikh di def ak pour mën a jeu bu mu bëgg a jouer ci kaw Cheikh mais pas mu ci impliqué doomam donc yéen ñi nga xam ni yéenee ay yaay booy am na yoo xam ni bu ngeen ko réglé seen kër bu leen ci boole seeni doom parce que loolu influence la ci kanam xale bi ndax su màggaale ak loolu rek ëllëg mën na yor jikko boo xamante ni xëy na du doon jikko bi nga xamante ni si moo gën donc je pense que également loolu aussi tamit jigéen ñu bëri war nañ ci jànge donc tey vidéo du gudd point yooyu rek lañu indiloon bëggoon ci waxtaan ak yéen képp koo xam ne nag seetaan nga vidéo ba pare boo ci amee xalaat mën nga ñu ko defal ci commentaire yi wala nga envoyé ñu ko par message vocal ci sunu whatsapp di delluwaat di tuubaat encore une fois di jéggalu ñëpp lépp lu ñu fi wax nag mu jub ngeen xam ni ndimbalu borom bi la mais lépp lu dem dëng ci ñu ñii di wax la di leen jaajëfal bu baax a baax di leen jox dig daje ci beneen vidéo incha allah merci atul tout